gis nga jigéen ñii ñuy jàpp ñu sol tol gu yiwadi nun nooy dem ku dajeeg ñoom boo leen jàppee mm-hmm. ñaar li leen ci digal mm-hmm. boo dajeeg moom ci mbedd mii boo ko da nga koy dànd xamal ko ne lii nga sol baaxut ñaar moo mën a am mhm. nga dugg si kër gi àbb loo sol mhm. wala nga dem ñu ànd ak yow jiit yow ba fa nga dëkk su mu yére bi jox su mu yére yi nga sol jox waaw loolu moom wax na waaw loolu moom dégg naa ko bu wér loolu la ñuy def moom moom dégg naa ko bu wér waaye taxaw bu jàppee ji leen futti dañ wax ne ko mu dugg ci kër gi waaw waaw àbb fu mu bu sol ko lam soloon lu bon mu jox leen ko waaw loolu ñu dégg futti loolu lool kenn kenn digalu ko nit mhm. wala boog ku ko def bu dee Baye Fall nga tuddoo ak koo mën a tuddoo mhm. xamal ni jalgati nga li liñ digle mhm, parce que nekk fi di nekk l'avocat de du caagantu nekk ne Baye Fall def lu wër ku si def loo wër dañ lay xamal ni bu dee si kuréel gi nga bokk bu dee Baye Fall nga boo xam ne da ngaa dund nii rek nekk di dund sa Baye Fall te bari na ñoo xam ne ñu ngi dund ak Baye Fall te wuyewuñ Fall te ñi ngi dox si liggéey bi ñu du ko yëg di ko xam ku kuñ ci gis dañuy dikk ba si yow xamal la ne la boo bëggee tàbbi si liggéey bi dangay ngay ñëw sa kër ga boo ñëwee bu ñu seetee ba xam ne war ngaa amu carte ñu amu carte mm. waaye jigéen moom ni nga fireeku ku nit ku lettuy mees dig rek am na bi ma tëddee am na mbokk mu ma ne ma daa am doomam du ñu jàpp dafa mees ba ma wootee fee ñu ne ma kii kat daa meesu meesu egsi ba si ba si ba si ndiggam ay mees la def man leen lu ngeen di def ñu ne ma yaayam ñëw na yaayam la ñu xaar mu ñëw pour firi mm-hmm. yaayam moo ko moom lañ woo mu jóge fi ñëw. yaayam firil ko firil ko létt ya ba mu set. waaw ñu doon ànd ak moom daal di dem ñibbi. waaw kon loolu aw loolu sañ na. kon walaay asim. Euh, sëñ sëñ sëñ sëñ ma demee sëñ bi waaw ñi di trafiqué ay ay ay pon di mm-hmm. jaay pon. di mm-hmm. jaay cigarette. Mm-hmm. di jaay yooyu ñu def di tux. loolu daanaka moom mbàkkee yem. Touba li ne fii si Touba. li fi ne si loolu wute wul li ne mbàkkee. boo ñëwee fee jal bañ lay won jal bañ lay won mu toll nii mm-hmm. jal baa nga fa tegee mm-hmm. dégg mm-hmm. cigarette ak poon ak mboolem lu si aju ñu ngi fii ñoo xam ne si seen kër lañ leen di ko jaay bu ñu leen jàppee indi alamaan leen ba leen bu subaa ñu jàppaat leen ndax dañ ne duñ ko baax bu dee wàllu yamba boo laajee commissaire seen wala nga laaj commande na ñoo war wutal ay daan yu wér boo laajee ñooñu liñ fa yóbbu si liñ jàpp si ay quantité eh, drogue yamba mas jàpp nañ fii bis benn bis rek douze kilos yàmbaa ko ko yor ay moto jakarta lañ koy dugalee si dëkk bi ak ay taxi jaay dañ leen di jàpp di leen épingle amul benn bis bu gars yi di génn te duñ jàpp yàmbaa benn bis ba bii nga si mujj hmm. benn bis bu ñuy génn te jàpp xeeti yàmbaa bu dee sàngara nag moom ay jal biteel la ay jal dama ne duma ko wax si hmm. koy tuub dégg nga la loolu ñu taxaw ne duñ ko bàyyi. ñu mm-hmm. ñun siy jàpp di leen indi dañ leen di suturaal. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. léeg-léeg ñu teg leen ay daan ay alamaan ñu dem waaye lu bari si ñoo xam ne suñ leen jàppee tey balaa gannaaw suba ñu jàppaat ñu si lu mel noonu. loolu ñooñu léegi fu ñu féete.